waaw xam nga loolu moom dañ ci euh, dañ leen ci wóolu aussi di leen ñaan seeni ndimbal yéen aussi parce que médias yi ak journalistes yi dañ ci am solo lool parce que li ñuy wax rek chaque fois bu je pense que ne euh, Youssou Ndour waay na ko bu ñii di ñii di gas ñi ngi suul euh, ñun nag ñu on préfère bokk ci ñi nga xam ne ñoo ngi gas mais yéen da ngeen ci am benn rôle bu am importance pour relayer euh, pour que nit ñi xam ne li ñuy def nii njëriñu euh, euh, Sénégal la njëriñu askan bi la de sorte que ni ñu demee ci kilifa diine yi loolu dinañ ci ñëw ci communication ñaan leen ñu defal ñu ñaan mais ñu def aussi ay déclaration pour que nit ñi faciliter ñu liggéey bi ba bu suñu agent yi bu ñëwee ñu tijji leen suñu agent yi nag dinañ leen reconnaître parce que dinañ sol ay gilet ak mandarga ANSD ak euh, seeni badge euh, mais chaque fois ñu def recensement dinañ gis ne ah, dina am toujours ay samba yoo xam ne euh, yàq loolu kenn tous les pays képp ku def recensement tous les pays di nga gis ne dina am toujours ñoo xam ne xëy na dinañ ko dëkkal fu mu dëkkul mais c'est à nous ñu xam njëriñ li ba nga xam ne ku nekk ci sa nga bay ci sa waar xam ne euh, lii ñuy def njëriñu Sénégal la boo xoolee ni ñu defee recense recrutement yi recrutement plateforme informatique la bu ñu def boo xam ne yow foo mënti toll rek ci Sénégal mën nga bindu ni fii laa bëgg a defee euh, recensement bi xam nga loolu y a pas plus euh, maintenant ñi nga xam ne nag Euh, dañ ko bëgg yegg yóbbu feneen foo xam ne yegg yeggu fa sénégalais yi ci seen bopp ñi nga xam ne mos nañu def recensement te loolu moo ñu may chance aussi parce que dañ ko def rappelé nga ko 76 88 2002 2013 quartier boo dugg lu ko munti xool di nga gis ne kenn dina la wax ne man mos naa nekk agent recenseur wala mu ne la mos naa nekk contrôleur am na am na ñoo xam ne fi mu nekk nii expérience boobu rek daf leen di jaral lépp même boo dañuy ne même bu ngeen ñu bu ngeen ma fayul dama bëgg bokk cet acte citoyen là il est important que tous les Sénégalais ñu jëlal seen bopp recensement bi comprendre importance bi ba nga xam ne képp ku jóg pour bëgg ko wax defal ko wax ko waxal ko lenn loo xam ne du yow ñun ñëpp xam nañ ne recensement àdduna ñëpp ñoo koy def te charte yi ñu ko yi ñu ko tegee ni ñuy recenser Côte d'Ivoire moom la ñuy recenser Burkina moom la ñuy recenser Guinée partout c'est la même chose donc bu nit ñëwee et vraiment ça je demande aux aux journalistes surtout ñu jàppale ñu ci loolu parce que bu nit ñëwee ñu tàllal ko micro mu wax. ni recensement bi non bu leen ko d'accord parce que dañuy ngeen ne ko nag fay ko foo ko teg Côte d'Ivoire dañuy recenser Guinée dañuy recenser Mali dañuy recenser France dañuy recenser Amérique dañuy recenser mais ñun pour pourquoi dañu recenser recensement tous les dix ans la 2033 dinañ defaat recensement bu ñu koy def ci ban contexte lay tombe kenn xamu ko Sénégal nag tombe na benn contexte boo xam ne c'est un contexte assez difficile mais loolu warul tax ñu teggi euh, recensement dañ ko war a def à euh, date bi ñu ko war a defee mais sénégalais yi jëlal ko seen bopp jàppal ko seen bopp sàmmal ko seen bopp ba nga xam ne ku xam ne mi ngi ko bëgg dëkkal feneen ñu rappeler ko à l'ordre nekkool bàyyil ñu def suñu recensement parce que lii moo ñuy téye dix ans yii di ñëw c'est important que ñu xam parce que li ñu war a saafara ci dëkk bi bari na mais bu ñu xamul boo xamul jàngoro doo ko mën a faj te recensement day génne jàngoro day génne li baax day génne li bon ce qui fekk que ñi war a faj ñi war a indi saafara mën ko indi loolu euh, vraiment maa ngi koy def euh, un nappel à à tous les Sénégalais à tous les leaders euh, d'opinion ak euh, kilifa diine yeeg aada yi euh, euh, leader de bànjeenu gox yi ah ñu ngi leen di vraiment tàllal suñu loxo parce que ñoom dañu am importance bu rëy ci liggéey bi ñuy def ba nga xam ne suñu agent yi bu ñu ñëwee ci kër yi ñu mën leen yaatal jox leen information bi livré bu mu yokk bu mu wàññi bu làq dara Euh, parce que souvent dañuy yaakaar ne boo limee ñaata doom nga am xëy na baaxul mais yooyu euh, yooyu je pense que ni ustaas yi dinañ ci war a wax euh, dinañ ci war a wax dara ba parce que ci gëm yàlla la bokk yaakaar naa que nga xam ne lépp lu xew rek yàlla yàlla yàlla mais bu ñu xamee jàngoro yi joxe naa exemple mortalité infanto juvénile ni ñuy nattee xam lan moo tax ñu doon perte xale yooyu 2005 121 lañ doon perte 121 sur 1000 naissances aujourd'hui wàññi nañ ko ba 37 natt ak xam lu tax ñu doon perte loolu moo ñu indil ak waa euh, kër docteur ñu saafara yooyu donc loolu mooy solos natt loolu mooy solos euh, nit ñi wax ñu problème yi nekk ci biir kër yi taux d'électrification bu ñu waxee électrification rurale ci la ñuy xamee ne dëkk sàngam euh, euh, amul ci lañuy ñuy xamee ne boo jëlee wàllu dëkk bi nii foofu ndóol na ndóol boo xam ne il faut ñu jëlee fii yóbbu fële la redistribution est un de ses rôles les plus importants mooy faire de la redistribution munoo def nag redistribution boo xamulee distribution da ngay xam distribution ni mu talee ba pare nga mën a def redistribution mais bu fekkee ne état rôle am un de ses rôles principaux mooy redistribuer te xamul affaire yi nan la distribuer woo day am day day day am problème moo tax recensement am na solo sénégalais bu nekk war na ko jëlal boppam protéger ko boppam ba suñu agent yi ñëwee non seulement ñu tijji leen seen kër mais gunge leen sax euh, ci beneen euh, kër gi ci des comme ça ñooñu aussi mën leen euh, accueillir ci jàmm ak salaam. donc recensement recensement général.